membre de la sécurité présidentielle Madame état bi ci boppam moom mobilisé tay wane Sénégal war nañu fier war nañu mën euh bég ci état bi ñu am parce que président bu bu dem benen ñew warul tax état bi taxaw dafa am lu ñuy ya ma ko gëna xam continuité de l'état euh ak lu mënti am état dafa wara fonctionner euh, ci ni mu waree loolu mooy réew te Sénégal dañu ci ragné bu baax loolu nak motax euh tay nga gis euh, ci walu sécurité ci euh affaires étrangères ci walu administration bu bu Sénégal dans son ensemble ñep mobilisé wu ngir euh, fexé ba tay bis bi nek bis bu muccu ayib parce que moment la bo xamanteni nam dañuy changer

kenn mënu koo xar ñaar te suñu cohésion nationale maanaam ànd bi ñu ànd loolu euh, ñëpp dañ ci war a xar seen tànk tubéy te njiitu réew yi yëpp ci loolu la liggéey président Bassirou Diomaye Faye ci boppam dégg ngeen ko tey ci discours am loolu la wax ne euh, du wàcc ci di ko jëfee ba tax euh, dina ci woo askan wi yëpp woo ci képp koo xamante ni mën na dugal loxoom ci loolu maanaam Sénégal wéy di nekk réew moo xamante ni wayam dina rafet ci wàllu démocratie ci wàllu cohésion waaye tamit réew moo xamante ni tamit dina gën a jëm ci kanam ci wàllu koom euh, su ko defee lii askan wi di xaar ci moom euh, ci wàllu xëy ci wàllu dund gu yomb euh, ci wàllu mbay mu jëm ci kanam ci lépp rek li nga xamante ni moom moo di espoir bi ñu placé ci sa personne moom mu mën ko jëfee Euh, ba tax euh, dal euh, Sénégal ku ne mën ci gis sa bopp parce que président de la République bu ñu ko falé loolu moom mooy moom mooy li nga xamante ni moom moo ko war maanaam taxaw ci soxlo askan wi te loolu moo taxoon moom président Bassirou Diomaye Faye mu tëgg benn projet boo xamante ni ànd na ci ak waa partem Pastef ki ci jiitu mooy président Ousmane Sonko ñoom ñëpp ñu liggéey ci euh, dem dàggan baatu askan wi comme ni ñu koy waxee ci wolof euh, ci campagne électorale boo xamante ni mën nañ ko waaye tamit ci liggéey boo xamante ni euh, yàgg nañ ko def ci wàllu woowu tey nag loolu moom moo tax sénégalais yi fal leen ba tax ñu jublu ci liggéey boobule fàttali naa ko sànq comme ni nga ko junjee yow tamit sànq ci waxtaan wi daanaka bi ñu ko installé ba léegi ci loolu la nekk ci euh, liggéey boobu ba tax euh, fileeki saa rek ñu war a mën a xam yan euh, acte maanaam lan lay ga jëfe ci wàll woowu jëm rek ci liggéey bi nga xam ni nar na ko song ànd ci ak gouvernement bi muy nomee muy gouvernement bu njëkk ci ci ci li nga xamante ni moom moo di magistère am moom président Bassirou Diomaye fay ndax euh, xam nañ ne euh, ku farlu la ci wàll woowu euh, li nga gën a li gën a am solo nag wala boog lii nga xam ni moom moo war a tax xëy na xel dal ci wàllu woowu mooy sa jeunesse maanaam ndaw la wax nga ko sànq 44 ans ñeent fukki at ak ñeent daanaka gulet njiitu réew bu Sénégal am âge boobu Euh, ñu fal ko euh, dynamisme bi wala boog cawarte bi nga xam ni moom euh, la njiitu réew soxla am na ko ndax ndaw la donc loolu déjà avantage la waaye tamit koo xam ne la formé nañ ko ni ñu ko war a formé ci école bi nga xam ni moom mooy tàggat ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey ci administration Sénégal muy école bii di ENA inspecteur des impôts et xam ngeen ni ñoom seen liggéey dafa am solo ci wàllu euh, li nga xam ni moom mooy euh, ca euh, Ibrahima damay damay damay wolofal rek boo ma bu ma <laughs> bu ma juumee nga nga nga jàpp ci maanaam la maanaam xayma li jëm ci kopparu réew mi ñuy mu ñuy collecté daanaka loolu am na solo muy loo xamante ni kon xëy na suñu sukkandikoo ci sen expérience euh dinañu mëna xol naka lañuy mobiliser ay ressources euh, pour financer les les les projets de développement parce que évidemment mom euh bu fekkente ni bëgg nga ko développer il faut des ressources assez conséquentes euh ressources yooyu nak fi lañ ko mëna jëlé ci suñu lempo ak yu ni mel waye tamit euh, mën nañ ko jëlé ci bitim rew ak coopération yi ñi am ak euh, ñi nga xamanteni ñom ñoy institution yi waye tamit rew yi Sénégal euh, ànd di liggéeyal donc ci wàllu woowu xëy na euh, bu weesoo jeunesse bi mën nañu am yaakaar ci ci wàllu woowu waaye tamit engagement bi nga xamante ni am nañ ko te ñu wane ko ci seen wàllu euh, doxalin ci ci politique en tout cas li mu wax dal na xel mooy képp koo xam ni war na mën a indi loxoom waaye boog xelam wala dooleem ci liggéey boobu mu ngi la ciy woo

nation bi yëpp peuple yëpp dañu war a mobiliser ñi nga xamante ni itam ñoo di askan wi seen seen seen seen wàll dañ ko ci war a dañ ci war a jouer. Mhm. Euh, parce que euh, ñi ngi wax ne euh, par exemple la jeunesse ndaw ñi am na espoir bu rëy boo xamante ni am nañ ko ci ci wàll wi waaye. nee na ñun ndimbal aussi dafay fekk ci loxo borom ndaa daanaka il faut que aussi ndaw ñi ak askan wi daanaka xam ne Euh, réew moom ñëpp ànd liggéey ko ah du ñu nommer du ñu élire euh, président de la république rek euh, bàyyi ko ak mbir mi ñëpp a koy ànd jàppale surtout moment yi ñu toll nii nga xam ni Sénégal mi ngi ci benn tournant bu historique bu am solo am nañu ay ressources yoo xamante ni war nañ ko exploiter mu jëm ci hydrocarbures pétrole ak gaz te dafa nekk loo xamante ni bu fekkente ni ñëpp ànd nañ ci Euh, président de la république bi am vision bu leer euh, lepp rek fay jëmaat ci askan wi ñëpp mën ci gis seen président Bassirou Diomaye Faye donc c'est imminent Ibrahima oui Omar euh, le ministre secrétaire général est en train d'arriver avec le président Ousmane Sonko et le ministre Maritou Teuw donc je vous laisse écouter les décisions qui vont euh, sortir euh, euh, comme premier acte posé par le président Bassirou Diomaye Faye. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Djahar Faye, a nommé par décret numéro 2024-921 du 2 avril 2024 le Premier ministre de la République du Sénégal le président de la République, vu la Constitution, notamment en ses articles 42, 43 et 49, décrète, article 1er, M. Ousmane Sonko est nommé Premier ministre de la République du Sénégal. Article 2, le présent décret sera publié au journal officiel de la République du Sénégal, fait à Dakar le 2 avril 2024. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Monsieur le Premier ministre, je vous passe la parole.